aouzubillah bismillah barke borom Touba asalaamualeykum wa rahmatullah ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara di leen balu àq tey bal ñi baax yi seen naafile guddik tey di guddik fanweer gi ci weeru koor Serigne Souhaïbou Mbacké nee na ku ci julli juróom benn rakaa bu ci ne nga jàng faatiha benn yoon jàng qul huwallahu ahad basaar wi jeex fukki yoon ak benn ku def loolu yàlla dana ko tabaxal kër ca àjjana ba tey Serigne Souhaïbou Mbacke nee na guddik fanweer gi ku ci julli ñeenti rakan rakan bu ci ne nga jàng faatiha benn yoon jàng xul yaa ayyuhal kaafiroona ba saar wi jeex ñaar fukki ak juróom jàng xul huwallaahu ahad ba jeex ñaar fukki yoon ak juróom ku def loolu des na ko musal ci sawara te it des na ko jéggal mook ay jege ñaaleem te buy jéggi siraat ne ak melax lay gaawe yàlla na nu ko yàlla mandoo te nu def ko te def ko nam ko taamoo te mu nangul nu ko te fulal nu ko te làqal ñu ko fu yàq yëggul barke Cheikhul Khadim